rawatina mbokku taalibe yi nga xam ni dañoo jokk ci cheikhul xadim xadimu rasulillah te jële seeni ndigal ci ki nga xam ne moo ko fi nekkal muy cheikh mohamadul muntaka ibnu cheikh mohamadul bachir ibnu cheikhul xadim di xalifa tarixatul muridiya e, moo ma woo léegi e, moo taxoon ma ñëw fii di def déclaration bi nga xam ni moo jëm ci xew-xew bi nga xam ne bii moo xew ci jamono ji muy jàngoro jooju nga xam ni dafa nekk ci àddina bi ba dugg ci biir réew mi jàngoro jooju nga xam ni ji e, daanaka ay matuwaay yu bari réew yëpp ñoo ngi koy jël e, e, bi jàngoro ji déclaré fii nga xam ni ci réew mi dugg ci réew mi ku ne xam na li nga xam ne lii mooy jéego yi nga xam ni moom la ci sëriñ bi jëkk a def nga xam ni daanaka ba mu déclaré rek ñu ni am na maanaam fa mu feeñ euh, la daal di jël koppar yu baree baree bari lu toll ci ñaari téeméeri million ci suñu xaalis dimbalee ko état du Sénégal bi nga xam ne bi moom la yàlla def tey jii mu yor responsabilité wu sécurité réew mi yor tamit responsabilité li nga xam ne lii mooy santé publique nga xam ne loolu ci responsabilité état du Sénégal la nekk daal di ciy boole ak ñaan yoo xam ni booba ba léegi mi ngi ñaan mu ngi déglu digle jullit yépp ñu def ay ñaan di digle ñi nga xam ni ñépp ñoom lay jox ndigal ñu jàng wàcc ay kaamir jàng alxuraan jàng ay xasaayit ñaan li nga xam ne lii mooy balaa bi nga xam ni san moo ko bind muy jàngoro yebal ko fi mu ko yebal ci àddina yebal ko tamit ci li nga xam ni jàngoro jooju mbindaafoon la moo koy def yàlla teggil ñu natt boobu ba nga xam ne bii réew mi dina dellu ci sagoom ak àddina bi yépp bi nga xamee ni bii waxoon nañu ci lu jëm ci biiru julli waxtu yu juróom ak julli waxtu yu ajjuma dañoo jàppoon ni dañu nu julli ci jumaa ji nga xam ne ji ci ndigalam la ne ak kilifteefam muy ji naan fii ci ndakaaru ba ñu jàppoon ni suba ajjuma dinañu julli ajuma ba loolu mu siiwoon ci mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yépp ginnaaw loolu la gouverneur de la région de Dakar mi nga xam ni moo fi nekkal nguur gi nekkal fi président de la république ak ministre de l'intérieur ñoo jël dogal ni dañoo tëj jàkka yépp ak juma yépp loola nag sëriñ bi nee na ci ndogalu nguur la ne ndaxte ñi nga xam ne ñii ñoo yor nguuru réewum Sénégal yor kaaraange gi te ci jiitu di président de la république ak ñi nga xam ni ñooy ay jëwriñam muy ministre de l'intérieur ak gouverneur bi nga xam ne mooy exécutif régional jël na arrêté boo xam ne bii nee na tëj na jàkka yi tëj na jumaa yi ba beneen jamono ñun nag di taalibe murit ñëpp xam nañ ni benn wàccuwaay lañu am benn benn fenn la ñu tënkoo muy ci baatu xalif général des mourides bi nga xamee ni bi sëriñ bi woo na ma xamal na ma ni lu mel noonu muy saytu li nga xam ni mooy wér gu yaramu réew mi saytu li nga xam ni mooy kaaraange réew mi loolu mi ngi nekk ci loxo nguur la nekk te comme nguur décidé na ni jàkka yi nga xam ni ñoo nekk fii ci région de Dakar te Masalikul Jinaan mi ngi nekk ci région de Dakar dañoo jàpp ni dañ ko tëj pour kaaraange réew mi dañ ko tëj pour kaaraange ak santé publique boo xam ne bii yaakaar nañu ni mbooloo mu dul jeex dina fi dajaloo te condition yi nga xam ne yi mooy condition yi nga xam ni moom la ñu war a def muy condition optimale la ni ma ñun tënku ci li nga xam ne lii ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox ñu yor dogalu àddina bi dogalu nguur gi ci seen loxo nañu tënku ci loola ñu wax ba ba ñu tëjandi jàkka ji ba leneen dab ñu ci ndigal bu fekkee dañ ko war ubbi ak di fi jullee kon ñuy ñaan bépp taalibe ak bépp jullit boo xam ne Masaalikul Jinaan dañ ko jël mu nekk seen barab boo xam ne bii ñu fi ñëw di ñaan di sakku si di fi jàmm yàlla nañu xam ne ndigal loolu moo bàyyee ko ci xalif général des Mourides ni état bi moo décidé ni pour mbirum jàngoro jooju fi nekk ci réew mi te ñu ragal ci ay wàllante ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jàkka yi di julli. mooy dogal bi nga xam ne gouverneur dogal na ko. te jëlee ko ci ministre de l'intérieur ak le président de la république ba beneen dogal bu ñu dab ñu xam ne beneen dogal boobu moo ñu dab bu ko defee dina ñëwaat ci média yi partagé ko ak yéen wax leen ko loolu daal moo doon digal li nga xam ne lii dab nañu ñuy xam ni kon suba julli fii ci ajjuma ci Masaalikul Jinaan dañ koy naal ba beneen yoon ba beneen dog digal jot ñu ñu jàpp ci nag ni sëriñ bi mu ngi ñaan na mu ko tàmbalee woon ak na mu tàmbalee woon jël alal def ci mu ngi wéy di ñaan te mi ngi digal taalibe yi fu ñu mënta nekk ñu tënku ci li nga xam ne lii mooy li ñu sonal suñu borom digal muy tënku ci sunna si yonent bi mooy tamit tënku ci li nga xam ne lii moo ñu war saa su ne di julli di jàng alxuraan di jàngi xasida di ñaan ndaxte ñaan mooy gàllaaju jullit li ci des nag nga xam ne ndogalu réew mi la ku ne xam na ni yàlla ma ngi koy wax ci alxuraan allahumma malikal mulk tuuti mulk man tasha kon yàlla moo far nguur nguur ñoo yor responsabilité bi nga xam ne bii mooy responsabilité politique yor kaaraange réew mi yor ko ci défense yor ko ci tamit kaaraange santé publique comme dogal boobu dab nañu nañ ko déggandoo noonu te jëfandikoo noonu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sëriñ baa ngi ñaanal réew mi di ñaanal àddina bi day ñaan san borom mi nga xam ni moo dof ay moo ami dogalam dogal lii mu dogal yàlla nañu ko sama borom teggil ba jàmm dellu si ci réew mi dellu si ci àddina bi dellu si ci doomu aadama yëpp kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey ñaan cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko fi yàlla wéral ndax ku ne xam na ni sëñ muntaxa du nitu fitna ku xam na ni li gën ci askan wi lay def ku ne xam na ni tamit ñëpp la fi nekkal képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah jàpp na ni ci njabootam nga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 allahuma salli ala sayidina wa moolana muhammadin salatan tunajjina biha min jamihi al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamii al hajat wa tutahiruna biha min jamii sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa al ghayati min jamii al khayrati fi al hayati wa ba'da al mamati amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin